Boko la genen, angajman yon djel ti sektèr bi. Faye, liniye di yorel, universite, ekol prive yi, superyèri, nga khamne, nyom, pare nan yon, nyon, verifikasyon bin don def ti fakturasyon yi. Dakor nan yon, nyon, kene 2 milyar 900, yon manke, Le gouvernement a fay limu leen gouvernement sur 12 milliards étudiants yi dinañu jappalé comme programme PGF sur 4 milliards pour ñu parce que banque mondiale lañ ko projet il faut que ñu finaliser gouvernement bi jël mesure yi budget 2000 19 la ko gouvernement bi jël bokkul ak at bu jot taxawaay bi ñu doon taxaw ci wetu université yi ci période bi nekkee pour xool naka lañ leen di jàppale ñu jeexal seen i budget